أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن ديننا هو الدين الذي حفظ الله بها الحقوق حفظ الله به الحقوق وحرم به الأقوق أتى كل ذي حق حقه ووعد على آداء الحقوق بأعظم الثواب وتوعد على عدم أعدائها بأشد الإقاب وممن أمرنا الله بآداء حقه وأعلى مكانته وخصه بفدائله ليست لغيره من الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله إلينا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jéem a fàttali tey ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit ñi ana yan àq lañ yoreel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax su boobaa bu fekkente ne fàttali nañ ko ñu xam ko kenn ku nekk ci ñun di nga mën a taxaw di nga mën a góor góorlu ci àq yi nga yoreel borom bi nga xàmme ko waaye àq yi nga yoral sa moroom nga xam ko waaye àq yi nga yoral yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ko ràññe ko ba doo ko jaawale ak keneen wala ak leneen ndax sunu diine ji muy lislaam mooy diine ji nga xam ne yàlla tabaraka wa taala daf cee sàmm àq ku ne moom yàlla am nay àqam yonent bi am nay àqam way jur yi am nañ seeni àq nit ku nekk am nga say àq kenn ku nekk borom bi tabaraka wa taala ci biir diine ji dafal na la ci ay àq yoo xam ne àq yooyu nuroowul ak àqu kenn kenn ku nekk li nga moom yaa ko yeyoo kon kenn warul jël àqu kenn di ko jaxase ak àqi moroomam mbokk yi loolu mooy diine lislaam waaye diine ji dafa araamal jaxase àq yi kenn ku nekk li mu yeyoon mu jox ko ko kenn ku nekk li ko war mu ne nañ ko ko defal mu daa di bégal ñépp ñi nga xam ne sàmm nañ àq yooyu bu ñu dee mu fay leen waaye mu tëkku képp ku nga xam ne yaa ngi jaxase àq yooyu boo deewee moom borom bi tabaraka wa taala dina la mbugal bokk na ci ñooñu nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ràññee na seeni àq leeral ko ba mu leer mu wax ñu ne ñooñu kooku nañu respecté ay àqam mooy sunu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ ko yoreel ay àq war ko koo jox ba mu mat sëkk moom yonent bi du nangu lebal ay àqam kenn kenn ku nekk ku mu mën a doon àq yooyu war ngaa góorgóorlu nga respecté ko àq yooyu bi ci njëkk mbokk yi mooy taatuhu bi ma amar moom yonent bi lépp lu mu digle dañ ko war a def bu dee lu mu santaane la dañ ko war a def bu dee lu mu tere dañoo war a bàyyi loolu mooy àq bu njëkk buñ ko yore buñ ko yoreel moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ya moom yonent bi mu ne bu ma leen digalee benn mbir def leen ci lu ngeen mën waaye lu ma leen tere bàyyi leen lépp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax loolu ñaareelu àq bi mooy ijtinaabu ma naha anhu wa zajara moom yonent bi lépp lu ñu tere dañ ko war a daw dañ ko war a sori dañ ko war a bàyyi waruñu laam-laame lii amal nañu njëriñ wala lii nangam a ngi ci wala lii dinañ ci am dara wala lii dara danañ ci fekk moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lépp lu mu ñu digal dañ ko war a def lum ñu tere dañoo war a bàyyi wa ma aataakum rasulu fa xuzuu wa ma nahaakum anhu fantahu fattaqullah borom bi tabaraka wa taala nee na lu leen yonent yàlla mu indil jël leen lépp loo xam ne yonent yàlla muhammad indil na ko indil na leen ko jël leen waaye lépp lu mu leen tere bàyyi leen na ngeen ragal yàlla na ngeen dégg li yàlla wax ngeen def li mu leen tere ngeen mooy tandiku mbokk yi bokk na ci àq yooyu ba tey an laa naabuda allaha illa bima sharaa waruñu jaamu yàlla ñun jullit ñi lu dul ci li yonent bi tëral lu dul ni ko yonent bi jàngale kenn ci ñun warul def benn jaamu yàlla benn xeetu jaamu yàlla nag ak bu mu mën a doon bu dee julli bu dee koor bu dee aj bu dee joxe azaka bu dee dem màkka bu dee jàpp bu dee zikr lu mu mën a doon ci jaamu yàlla kenn ci ñun amul droit fent ay yoon wala nga jël ci keneen kudul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo tax keroog ba muy aj ajatul wida mi ngi taxaw ci naaj bu tàng ba naan saxaaba yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme nu ngeen ma gisee may jullee mbokk yi tomb bu doy waar a ngi nii waruñu jaamu yàlla lu dul ci ni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale yàlla tabaraka wa taala moo yónni yonent bi loolu moo tax ñuy jàng laa ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaha illallah mooy yàlla dong lañu war a jaamu muhammad rasulullah mooy muhammad mooy yonent yàlla bi muhammad mooy yonent yàlla bi muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla loolu ngay gis soo ko bëggee firi mu gën a leer mbokk yi avion ñaar ñaari laaf lay am avion ñaari laaf lay am benn laaf bi mooy laa ilaha illallah beneen laaf bi mooy muhammad rasulullah bépp avion bu lànk ne man duma am ñaari laaf mooy li muy tekki mooy doo naaw wala ku ci dugg ci yow dem àllaaxira laa ilaha illallah yàlla rek la ñuy jaamu muhammad rasulullah muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla képp ku jël beneen façon jaamu yàlla bu muhammad indiwul dañ koy laxas ba mu dëgër ñu daal di la koy sànni daal la koy delloo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax loolu moom moo ne man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xam ne sunu mbir mi muy islaam sunu mbir mi muy diine ci indi nga ci lu ci bokkul dañ la koy delloo kon nañu xam ne kenn warul jaamu yàlla lu dul ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamoo yàlla kenn warul wax kenn warul jëf kenn warul def nu dul nu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam defee ñeenteel bi mooy tasdiquhu fi ma axbara dañoo war a dëggal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lépp luñ mu xabaar buur bu toll na yàlla yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko demal nga wax lii xabaaral lii nit ñi jàngalal leen lii nit ñi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw xabaar ñu ne ñu nangam ak nangam dina am mu wax ñu ne ñu nangam ak nangam dina am moom yonent bi bu mu génnee àdduna ak léegi yàggagul sax nit ñeneen ñi ñëw di soppile yonent yàlla muhammad xabaaroon naan waaw nii la ko waxee waaye nii lay amee wala yonent bi kat moo wax lii waaye diw wax na nangam kon diw moomu laa ilaha illallah dañu bëgg a jël waxu diw teg ci waxu yonent yàlla muhammad diw moomu bi yàlla di yónni muhammad gisoon na ko fi dafa doyul yàlla diw moomu doyul yàlla yàlla ki ko doy moom muhammad moo tax yonent yàlla muhammad yàlla yónni ko ne ko demal nga xabaar nit ñi ne leen nangam ak nangam bii laa bëgg lii mooy xew kon nag mbokk yi nanu ragal yàlla ñu jox yonent yàlla muhammad gëdd ñu jox ko ay àq ñu fonk ko ñu teg ko place bi nga xam ne foofu la ko buur yàlla tabaraka wa taala teg su fekkee dañoo bëgg ëllëg yowmal xiyaam buñ deewee yàlla gërëm ñu juróomeel mooy al iqtidaau bihi li annahu al qudwa wal uswa wal muallim juróomeelu àq biñ ko yoreel moom yonent yàlla muhammad mooy dañ ko war a roy ndax moom mooy royukaay wi dañ ko war a toppandoo ndax moom mooy jàngalekat bi yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana bu fekkee da ngeen a bëgg ku ngeen di toppandoo bu fekkee da ngeen a bëgg ku ngeen rey bu fekkee ke da ngeen a bëgg nit koo xam ne ni moom ngeen di mel ci seen lépp mu ne xool leen muhammad ci nu ngeen di soloo ci nu ngeen di doxee ci nu ngeen di waxee ci nu ngeen di jaamoo yàlla seen dugg ak seen génn lépp lu mu mën a doon yàlla tabaraka wa taala joxoñ nañu yàlla nee na amuleen fu ngeen ko jëkkaani lu dul ci yonent yàlla muhammad sallallahu ak ci lépp lu mu mën a doon nag suñuy dugg ak suñuy génn guddi ak bëccëg tàngaay ak seddaay mu neex ñu mu naqari ñu yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ñu joxoñ joxoñuñu keneen ku dul sang bi kii la ne bu ngeen ko toppee rek daal di jub kii la ne na ngeen ko roy mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi te àddina bi yépp bu ñu tënkee nit ñi képp koo xam ne yaa ngi tuddawoo lislaam képp koo xam ne jullit nga suñ la tegee ci kanamu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo dara yonent bi rek mooy dara ndax yow sax dara jooju li tax nga nekk ko mooy dangaa nekk ci ginnaaw muhammad moo tax nga nekk dara kon nag mbokk yi ñun waruñu jëggaani ñun waruñu topp waruñu nekk ay al toppe ñun waruñu xool keneen ndax ki yàlla xool ki ñu yàlla xooloo doy nañu mooy yonent yàlla muhammad moo tax yàlla mu ne ñu na ngeen ko roy na ngeen ko toppandoo ndax moom mooy jàngalekat bi moom la yàlla yónni woon mu nekk muallimul akbar borom jàngalekat bu mag a mag bi moom mooy moom mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi juróom benneelu àq bi ñu yoreel muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mahabbatuhu akthar min mahabbati nafs wal ahli wan naasi ajmain bëgg ko moo war a ëpp li ñu bëgg suñu bopp li ñu ëpp suñuy mbokk li ñu bëgg nit ñi yont yàlla muhammad bëgg gi nga ko war a bëgg moo ñu war a gënal suñu bopp moo tax moom yonent bi mu ne kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul man lay gën a bëgg ak boppam laa yumin ahadukum hatta ahabu ilayhi waaw min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain seeni ndey ak seeni baay seeni mbokk yépp bu ñu booloo aduna ak alaxira yonent yàlla muhammad nee na man ngeen war a teg ci kaw man ngeen war a bëgg annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim yàlla wax nañu yonent bi moo leen war a gënal seen bopp te ay soxnaam seeni yaay lañ kon lii yonent yàlla muhammad dong moo ko am moo tax bëgg gi ñu ko war a bëgg moo raw bëgg gu ñu war a bëgg suñu bopp moo raw bëgg gi ñu war a bëgg suñu njaboot waaye moo raw bëgg gi ñu war a bëgg nit ñëpp bu àdduna bi àndee àdduna ak àllaaxira ñëpp ku mu mën a doon yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ñu war a bëgg juróom-ñaareelu àq bi ñu ko yoreel mooy nusratu sunnatihi bil amali biha wa iblaagiha linnaasi wa difaai anha dañu war a jottali sunna muhammad ci ay jëf dañu war a jottali sunna yonenti yàlla dimbali ko dimbali sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëf waaye jottali ko nit ñi waaye défendre ko ñetti mbir la dañ ko war a jottali dañ ko war a dimbali waaye dañ ko war a défendre xoolal ki ki nga xam ne mi ngi défendre lu muy défendre parce que xam ne li muy défendre kii jottali su li muy jottali bu jotul bu ko jotulee du ko mën a jottali ki nga xam ne moo ko war a dimbali li muy dimbali su ko xamulee du ko mën a dimbali te tey jullit ñi toll nañ foo xam ne sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koo xamul dañ koo réeree lu ñu lu ñu sori la ñoom jullit ñi te xam ngeen ne loolu ay àq la yoo xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom juróom-ñaareel mooy nusratu sunnatihi ñu dimbali sunnaam bil amali biha ci jëfe ko waaye wa iblaaxi anha ci jottali ko linnaasi nit ñi wa difaai anha ak aar ko défendre ko xeex ci mu daral ñu suñu deret tuuru ci mu daral mu jaral ñu ñu ñàkk ci suñu bakkan mu daral ñu ñu génn ci àdduna ñun ak lépp lu ñu mënta am bu fekkente ne dégg nañ diine ci mbokk yi juróom-ñetteel mooy nasru siratihi bayna annaas li takuna sababan min asbaabi lhidaaya wa liyalama annaasa siratahu hada rasul wa liyalama annaasa sirata hada rasuli l azam mbokk yi dañu war a tasaare sir biographie dañu war a tasaare dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir nit ñi ndax loolu bu ko nit ñi xamee bu nit ñi xamee kan mooy yonent yàlla muhammad nit ñi xam ni mu doon dundee nit ñi xam ni mu doon nekkee nit ñi xam ni mu doon jaamoo yàlla nit ñi xam nu mu doon soloo nu mu doon waxee nu mu doon doxee nu mu doon génnee loolu dina nekk sabab pour nit ñi jub ngir nit ñi mën a xam kan mooy yonent bu màgg boobu sallallahu alayhi wa sallam kooku yàlla joxoñ ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim allahu akbar xoolal ko toll ne yàlla daal di koy joxoñ ne ko yow fi nit ñi yem ci mbaax yow foofu nga tàmbalee jikko ju baax fu mu yem yow Muhammad foofu nga déparé jëm kaw nit ñi kon bu ñu déggoon alquran nit ñi kon bu ñu déggoon dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon musiba du leen dal àdduna waaye àllaaxira waxi noppi mbokk yi juróom-ñeenteel mooy kasaratu salaati wasalaami alayhi dañoo war a bëri lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahuma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيها الأحباب mbokk ci yàlla tabaraka wa taala ñu ngi woon ci juróom-ñeenteelu tomb mooy bëri lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom ak di sëlma ndax yàlla moo ko digle yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla nee na man yàlla ak malaaka yi day ñu ngi julli ci yonent bi yéen jullit ñi julli leen ci yonent bi léeg-léeg nga dégg koo xam ne daan man bala may julli ci yonent bi ñu jox ma ndigal bala may julli ci yonent bi ma ñaan wirt wirdu bi ku ko moom yàllaa ko moom te joxe na ko yaa ayuha alladina amanu yaa xarfu nidaa la ñan la woo ñi gëm yàlla alladina amanu man hum hal antum muminuun ida kuntum muminuuna maada tantaziruna al izn fii man fii ay man taaxuzuuna al izn ci kan ci kan ngeen di jële ndigal bu fekkee gëm ngeen yàlla jox na leen ndigal yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu sallu yéen ñi gëm yàlla julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamin innaka hamidum majid fukkeel mbokk yi atamassuku bi sunnatihi wal addu alayha bin nawajis mbokk yi fukkeel mooy dañoo war a nëpp dañoo war a matt ci sunuy dëgëj sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu matt ko ak sunuy dëgëj yonent bi nee na addu alayha bin nawajis na ngeen ko matt ak seen dëgëj sunna dañ koy matt kenn du ko sex kenn du ko log léeg-léeg nga dégg ñu ne islamolog loo log boo ŋaangee mu dañ waaye loo màtt ci say dëgëj ci dernière bëñ bi kooku dee rek mooy tax mu dañ moo tax fukkeel ci àq yu ñu yore yonent bi mooy dañoo war a màtt sunnaam ci sunuy dëgëj ba kenn du ko mun a foqarti fukkeel ak benn mooy raddul abatil aada allazina yasifunahu bima huwa bima huwa minhu bari dañoo war a delloo neen gi caaxaan yi nga xam ne noonu yi ñu ngi koy adressé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma huwa minhu bari mbir moo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sori na ko musu ko jege xamu ko musu ko dégg musu ko gis musu ko jege musu ko xeeñtu ay noon yu bañ diine ku bañ diine nag da ngay sonn yuriduna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim yàlla nee na maa bañ wallahu mutimmu nuura walaw kariha alkafirun walaw kariha almushrikun kon su ko defee jullit bi dafa war a xam ne islaam daal mooy dëgg mu noppalu mu bañ a sonal boppam mu bañ a sonal boppam moom jullit bi mu xam ne islaam mooy dëgg waaw soo xamee ne islaam mooy dëgg dootoo sonal sa bopp soo xamee li yàlla wax mooy dëgg dootoo sonal sa bopp mbokk yi jullit day gëm yàlla tabaraka wa taala jullit day bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu soo ko defee rek da nga noppalu kon mbokk yi fukkeel ak benn mooy nga delloo noon yi yi ñuy adressé yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay caaxaan ci ay mbóosóor yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sori na ko fukkeel ak benn mooy التخلق بأخلاقه لأنه كان على خلق عظيم وحقوقه علينا كثيرة جدا ويجب على المسلمين أن يعلموها وأن يعلموا بها وأن يظهروا فدائله وخصائصه ليتخذوه قدوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم مقي فكيل أنيار مو نجيكو أي جيكم ndax moom kat jikko yu rafet la amoon jikko yu màgg ay àqam yi ñu ko yoreel bëri na trop trop trop war na ci ñun jullit ñu jàng ko ñu xam ko waaye ñu jàngale ko ñu feeñal ko ci ñeneen ñi ba ñeneen ñi mun koo xam ba ñeneen ñi mun koo gëm ba ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dong la yàlla yónni woon moom dong li mu nekk mooy dëgg leneen lu keneen indi amul njëriñ alaxira yowmal xiyaam kooku indi loolu ku mu mun a àndal safara la jëm ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp allahumma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت يا رب العالمين يا رب نشهدك اننا يا رب نشهدك يا رب نشهدك يا رب نشهدك اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا وارحمنا في دورنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارحمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين